ngi noonu di waaj a sifflé dox ci diggante Papy Junior ak Ibou Lo ndaysaan Papy Junior Ibou Lo Papy Junior moom ngeen jàkkaar lool ndaysaan Ibou Lo moo la woon ginnaaw ndaysaan ndaysaan kii nekk parcelle mbooloo ndaysaan kii nekk lay tigre bu suñu papa mbéygee yàlla na ko yàlla yërëm ndaysaan xale yaa ngi noonu Papis Junior ndeysaan moo nekk les Tigres les Tigres bu suñu papa Mbaye Guèye moo nekk parcelle mbooloo ngemboo ngemb Lagos wan la ginnaaw Papis Junior moo nduróog Modou Lo rek ndeysaan am na trace mu ngi bëgg a cokkaas Papis Junior Ibou Lo Papis jiital tànk di jox na jëli ko daw na jëli ko na jëli yi dara amul dara amul wala déet lu xew hee Papis Junior daa jël tànk bi Ibou Lo bañ daw def rotation wane ginnaaw daw ba génn saako yi dellu si ñëwaat cey làmb arbitre bi sifflé waat na Ibou Lo ndeysaan ak Papis Junior Ibou Lo ndànk Papis Junior jëlaat da koy daan daan na ko doole Papi Junior mi ndaanaan la Papi mi daa bëre Papi mi daa mën bëre Papi mi daa mën a bëre Papi mi daa mën bëre Papi mi daa mën a bëre ndaysaan xoolal entraîneur ba moo ngi koy baatare may xaalis daaw na ci Père Ibrahima Mbaye daaw na ci Père Ibrahima Mbaye ndaysaan Père Ibrahima kott na ko ndaysaan ko oh les tigres la nekk bu suñu papa Mbaye Guèye les tigres ak écurie benn la yaakaar naa ni benn de ñoom ñaar duñu laale déedéet duñu laale ma ngay dem